li yéene kay bi meerub ndakaaru ba woon ak doomi lay wàdd ji li leen tëwoon mu di mën falu dara ci réew mi ndax problème yu ñu amoon ak bi commission politique bu dialogue national bi waxtaan nañu ci démb ba ci solution article L28 alinéa bi leen xañoon seen éligibilité moom la ñu indi ci ay coppite ba tax léegi ñoom ñaar mu di Khalifa Sall Karim Wade bu leen neexee mën nañoo bokk ci élection ponk beneen bu ñu doon waxtaanee indépendante ngir mu organiser élection yi l'observateur ne nañu foofeet ak déggoo amu ci journal Le Témoin xëy di ñu xibaar ci xëtamu njëkk ne Karim Wade ak Khalifa mën nañoo bokk léegi ci élection présidentielle yi ak déggoo am na ci dialogue bi ngir ñu defi modification ci article l bi Le Témoin mi ngi ñuy wax ne kaaw mandat bu Macky Sall bi réglé ko naka noonu yi kan mooy doon plan B moom nee na jàpp bu Ousmane Sonko bokkul Birame Souleye Diop mooy taxaw ngir taxawal waa parti Pastef tolluwaayu politique bi ci réew mi njiit réew mi tey na buum gi journal Le Quotidien moo ko bind ci xëtamu njëkk ba dolli ñu ci ay kàddu président Macky yu muy xamle ne réew mi di Sénégal du seetaan kenn di ko yàq ba kenn di ko salfaañe jaral na ma lu nekk li mu nekk moom njiit réew mi mu di di fexe ba ñu respecté état de droit ci réew mi Macky Sall nee du ci jóg ñu jugee ci journal Le Quotidien dem woon ci ndoxtal weeru juin gi yéenekaay bi nañu Ousmane Sonko wax na ci livre ba ne wàññi nañu ci réew mi fanweeri doomi aadama yu fi faatu ca manifestation yi ak ñeent ñoo xam ne seeni néew la gis waaye xamaguñu ñooy ñan wax na it téeméeri doomi aadama ak juróom fukk ak juróom-ñaar yu ci blessé ci ñoom mu ne fukk yi ak juróom balu fetal moo leen blessé réew mi quotidien nañu Sonko génne na chiffre lorange yi amoon ci événement yi fi woon ci weeru juin gi ngir mi quotidien nee nañu gaay yi na seen manifestation boobee nee nañu dañu koy def Abdou Karim Fofana mel ni ku nañu ci Vox Populi ñoo ko tal démb ba muy conférence de presse moom Abdou Karim Fofana ministre commerce porte parole gouvernement bi moom ak naataangoom bii di Samba Ndiobène Ka fa waxee ne ñiy wax waxi manifestation ci réew mi amuñum xel ndax mu ne suta génn cee manifestation bu yàggul ay nit faatu ci réew mi du ko naqarlu seeni mbokk di leen yooyu def ci sa bànneexu bopp Abdou Karim Fofana ne kuy xalaat loolee jaroo laaj xalaat xel xalaat yépp ci li ñu nekk jamono ji mu di ci tabaski gi direct news ci la xëy xëy dugg dëkk bi solo dalam dem ci marché bi ngir defi xayma ci xar yeeg ci ndugg yi ana fan la ñu toll Sud Quotidien nañu bu ngeen bëggee dégg dëgg moo di ñoo ngi jëm ci tabaski gu nara sàllar ñu ko tabaski dans tous ses états noonee la ko Sud Quotidien bindee ci xëtamu njëkk xar yi doyul soble si ñu a defaree soos bit am nay jaaykat yu ko am bu nuppi rënk ko denc ko te jubluwuñ ci dara lu dul bëgg soble manqué ba bëgg yokku njëg gi ku sa morom jar yi njëgu bëy nga Brésil gi Sénégal ñadd ni aw bay démb ci seen max amical bi ñu doon football ca Portugal mi ngi ci mboolem yéen a kay ñu record yéen a kay bind ne gaynde Sénégal yi dañoo dox démb ci kaw waa Brésil ñeenti bal ci ñaar a waaye gaynde wane démb moo dalum xel yéen bi bi nañu démb la ñu gis am Youssouf Sabali mu matum tudd matum tabaski démb la ñu gis am Ismaïla saar Habib Diallo ak Sadio Mané yu meloon ni fitt gu mbër sànni ci terrain bi l'observateur nañu kenn du Sadio Mané ne Sénégal ñeenti bit yu mu dugal moom Sadio Mané moo dugal ñaari ba far gën a dugaat ci histoire ndax dugal na démb fanweeri bitam ak juróom-ñaar ci équipe nationale bu senegal abonné leen ci suñu su nekk ay xibaar yu